assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون waaye nag kàddu yi ñuy bëgg a yëkkati kàddu ndigal la kon ci ndigalul Serigne Cheikh Fall moom Cheikh Mourou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. muy joxe kaddu muy joxe kaddu. muy joxe kaddu. maam Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Amdi Fall moom a Modou Mbenda Fall. nga xam ne mooy jëwriñam. moo yor kaddoom. kaddu yooyu muy wax itam. xam naa lim turi day moom. mën naa indi sax njuumte. wala mu indi fàtte. waaye boo nee njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp kenn kenn desatu ci ku meññ sa waajur ku meññ sa waajur ngay ab sët cheikh boo xam ne meññ daa sedd sa maam ba cheikh boo xam ne cheikh bi daa sedd maamam ngay ab sët ne fi ngay ab sët nekk fi boole na ñëpp nee na boole na ñëpp njabootu Cheikh Fall moom kon kenn desatul kon ci ndigalu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall kaddu jëwriñam ji di Cheikh Fall. ca kaddu jëwriñam ji di Cheikh Ibra Fall. baa ngi nuyu bokk jullit yi fi teew yëpp. di nuyu bokk taalibe yëpp. di njabootu Serigne Touba. di njabootu Cheikh Ibrahima Fall. mi ngi leen di nuyu lu bare bare bare. waaye di leen sant nag bu baax. di leen gërëm bu baax. ci kaw nag seen i jëf. ndigal li nga xam ni. Serigne Touba moo ko jëloon teg ko ci loxol Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda moom itam mu jël ndigal li jox ko ñu bokkal Cheikh Ibrahima Fall ñëpp muy fukki kër yi ak benn ak Cheikh Cheikh Ibrahima Fall yi Cheikh Ibrahima Fall Cheikh lu seen maam ndigal li ban leen ko jotalee li jëriñ ci ndigal nee na liy njëriñ ci ndigal safoo ko lool. jàpp ko lool jàpp ko lool. jëfe ko nag jëfe ko nag. ba ko borom ndigal li bëgg woon. ba ni ko borom ndigal li bëgg woon. ngeen jëfe ko nii. ngeen jëfe ko noonu. tey jii kat. nee na tey jii kat. ku jaar ci corniche bi ngeen bàyyi ko. jaar ci corniche bi ngeen bàyyi ko. jaar ci marché occas bi. jaar ci marché occas bi. jaar ñuy wax ngelamu ca kàmb ga. jaar fee ñuy wax ngelamu ca kàmb ya. danañ xam ne Cheikh Ibra Fall moom. danañ xam ne Cheikh Ibra Fall moom. àndug ah, Cheikh Ibra Fall àndug Sëñ àndul ak Serigne Touba wax. jëf la jëf jëf la ànd Serigne Touba. yéen a jëf nag. nee jëf ji nag. seereel seereel ngeen ko. seereel ngeen ko. loolu Serigne Abdoulaye Mbacke waxoon sëriñ bi day. loolu Serigne Abdoulaye sëriñ bi. ni ko suñ ñaari kër yi day. ni ko suñ ñaari kër yi day. daa am bañ. am bañ. kër gi ma nekk. kër gi ma nekk. muy kër Serigne Touba. muy kër Serigne Touba. ku toog fi ma toog. ku toog fi ma toog. war a digle digle woo. war a digle ci digle woo. a tere terewoo. war a tere terewoo. bu ko de. soo ko defee toog fi ma toog. lekk nga mañu kër sëñ Touba. lekk nga mañu kër sëñ Touba. seen kër googu xam nga luy mañam ah. sëñ Modou seen kër googee xam nga luy mañam. sëñ Modou amati ni ko Mbàkke bëggoon nañ koo xam. mu ndigal jóge kër sëñ Touba. mu ko ndigal bàyyi ko kër sëñ Touba. ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall. te ko. buñ ko day. buñ ko defee. lekk ngeen mañum kër Cheikh Ibrahima Fall. lekk ngeen mañum kër Cheikh Ibrahima Fall. waaye yéen de. mbañum kër Seex Fall ma day mbañum kër Seex Ibra Fall ma lekkuleen ko tey ji yu nee na sëñ Amdi Fall Moodu Mbende nee na Baay Fall yi jóg lekkuñu ko na ko sëñ bi bëggee woon day nee na na ko sëñ bi bëggee woon defe ngeen ko ni nee na defe ko ni de cant yi daa mënta ñàkk cant yi nag daa mënta ñàkk ci yéen ci lam ngeen di ko dégg ci aw lam mañ ngeen di ko dégg waaye sëñ bi daa wax ne ndigal lu ne waaye sëñ bi daa wax ni ndigal lu nekk dafa am lu koy booleel dafa am lu koy booleel boole ko ak ndigal la joxe boole ko ak ndigal la joxe lay tax mu xam ne jëfe nañ ko lay tax mu xam ne jëfe ne ndigal la lam ko boolee lam ko boolee loon loola la dul gisati mu xam ne kon lam waxoon jëf nañ ko waaye buñ ko jëfewul loola mooy dellu siwaat ci sëriñ bi mu xam ne kon jëfewul ndigal la waaye yéen fi ngeen toll tey jii waaye ñun dey fii ñu toll tey sëriñ Tuubaa mi digle woon ndigal li sëriñ Tuubaa mi digle woon ndigal li ak seera mi ko digaloon ak Seex Ibra Faal mi ko digaloon tey jii xam nañ ni tey jii xam nañ ni lañ bëggoon defalee ngeen ko lan bëggoon Baay Faal def nañ ko yéen tam xam ngeen tey jii. yéen tamit na ngeen xam ne tey jii. seenu bëgg. seenu bëgg. Serigne Touba Cheikh defal na leen ko. Serigne Touba Cheikh Fall defal na leen ko. kon nan rafetal suñu njort bu baax. feddali suñu laxasaay bu baax a baax. nee na leen amul lu dul moom. muy sëriñ bi. ñu gën koo jàpp bu baax. ak taali bi moom. du lu ñuy wax. lu ñuy jëf la. lu ñuy jëf la. soo ko jëfee ba noppi. ngaa bàyyi sa bopp nag ki jëf ki nga jëfe loolu man ngaa bàyyi sa bopp ak ki nga jëfe loolu mu jottali la ay cant ak ngërëmam kon cant yi ñuy jox sëñ bi mbooloo mi ñu bokkaloon liggéey bi kon cant yi mu jottali mbooloo mi ñu bokkaloon liggéey bi du samay kàddu de nee na du ay kàddoom de moom sëñ Fallou du mag fii itam magu fii de rawul fii itam rawul fii mu toog de gënu fii itam fii mu toog it nee na gënu fii ndigal rek la fay kon nag kon nag sëriñ Cheikh mi ngi jottali kàddu yi Cheikh Modou Moustapha Fall mii toog di Cheikh Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenn Fall nee na sëñ bi daal xolam sedd na guy sant na leen lu bëree bëree bëri gërëm na leen itam nee na ndigal li nag loolu lañ ci doon wut ngërëmul sëñ bi lañ ci doon wut ak xolam bu sedd loolu mooy mën a tax liñ ci bëgg ñu itam ñu am ko ci. kon sëñ bi nee na fu waay mën a nekk. te sa yaakaar nekk ci Cheikh Ibrahima Fall. nga nekk ci penc mii. wala nga nekk ci dëkk bi. wala nga nekk ci réew mi. wala nga nekk bitim réew. sëñ bi nee na xolam sedd na guy ci yéen. sant na leen bu baax a baax. gërëm na leen bu baax. nee na bu kenn yaakaar ni. lii ñuy wax agsiwul ci yow. xanaa ku ci jëful woon dara rek. waaye koo xam ne yaa ngi dégg wax ji ci jëfoon ci wan ngaa rafet njortu ci nii sëñ bi lii mooy wax lu maa tax mu di ko wax sëñ bi daal sant na bu baax gërëm na bu baax nee na ñu ngi sant nag rakki boppam yi nga xam ni mook ñoom ñoo bokk Cheikh Ibra Fall te bi ndigal la ñëwee mu tabal ko ci ñoom seex Cheikh Modou Moustapha Fall ak njabootam Cheikh Fall mii. Serigne Cheikh Fall mii ñu doon tudd. ñu koy wax Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. moo nekk ca boppam kër ga. kon nee na mi ngi sant njabootu Cheikh Modou Moustapha Fall gépp. ak ñi mbokk Cheikh Moustapha Fall. di sant Serigne Cheikh Cokke Fall. di sant it Serigne Cheikh Cokke Fall. ak mboolem njabootu Serigne Mbacke Fall. ak mboolem njabootu Serigne Mbacke Fall. ak ñi mbokk Serigne Mbacke Fall gépp. góor ñi ak jigéen ñi maa ak ndaw. di sant sëriñ Abdou Rokhaya Fall moom sëriñ Mamar Talla Fall ak njab ak mboolem njabootu sëriñ Mor Talla Fall gi ak mboolem ku bokk ci kër ga rek di sant rek sëriñ Amdi Fall moom Cheikh Sëriñ Assane Fall naar ko sar ñu di ko wooye sëriñ Amdi Khady Fall sëñ baa ngi koy sant bu baax a baax ak mboolem ñu bokk sëriñ Assane Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar sëriñ Cheikh Fall Mbawar ak mboolem jëbatu sëñ Aliou Fall Mbawar gi sëñ baa ngi leen di jottil ay cant ak ngërëm ak mboolem njaboot ga ak murid yëpp sëriñ Talla Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ ay cant ak ngërëm ak mag ña ak ndaw ña Serigne Cheikh mun na Fall moom maam Saliou Fall caatu maam Cheikh Ibrahima Fall ma Serigne Cheikh mun na sëñ baa ngi lay jottali ay cant yu ànd ak ngërëm ak mboolem njabootu maam Saliou Fall gi topp sa ginnaaw ak njaboot yëpp ak góor ñëpp ak jigéen ñëpp di sant Cheikh Falilou Fall moom sëñ Abdou Sakkour Fall sàkk yaay de Bassar ak mboolem njabootu sëñ Abdou Sakkour Fall sëñ baa ngi sant ñëpp sëñ Fall di gërëm ñëpp. sëriñ Assane Fall. sëriñ Assane Fall. moom maam Saliou Fall. moom maam Saliou Fall. ca Daaru Xafoor. ca Daaru Xafoor di rakk Cheikh Ibra Fall ja. nga xam ne maam Gunda Fall. mooy Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall it mooy maam Saliou Fall. sëñ Assane Fall nag tey moo fa nekk. sëñ bi nee na mi ngi lay sant ñëpp. sëñ bi nee na maam Saliou Fall. yaa ngi boole njabootu maam Saliou Fall gi. góor ak mag ak ndaw. ak murid yëpp. ñii nga xam ni Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall moo seexaloon seen i maam ñoom ñëpp a ngi fi teew ñoom ñëpp a ngi fi teew sëñ baa ngi sant mbooleem ñi Cheikh Ibrahima Fall te bëroon seen i maam muy seex si nee na seex sëñ mi ngi ñëw sëñ daam mboolem seex si àndoon na Cheikh Ibrahima Fall lan yoroon te lamp Fall joxoon ko seen i maam mbooloo nag njaboot ga ànd na moom lépp ñëw njaboot ga ànd na mbooloo ma lépp ñëw wu si sëñ Amdi Fall Modou Mbend ba li sëñ Amdi Fall bëgg lépp sëñ Aliou Fall sëñ Aliou Fall moom sëñ Talla Yacine Fall moom sëñ Bassirou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Bada sëñ Ba ne jot lay cant yu ànd ak gërëm yaa ngi mboolem ñu nga bokkal Cheikh Bassirou Fall bokk ak ñoom it sëñ Mortala Fall nee na taxawaay rafet na lool nee na desulul fenn kon sëñ bi nee na cant yi day soo gisee ñu bañ a lim tur yi bañ a fàtte fàttewu kenn da ngay bañ a juum rek waaye sëñ Amdi Fall nee na fi mu toog fàttewul kenn moom nee na ñëpp ñu ngi ci am xelam ñu ngi ci ab dënnam ñëpp ñu ngi ci xolam sëñ Tuubaa indi woon moom li sëñ Tuubaa indi woon ci moom mii nag mu jox leen ko mu jox leen ko nga ba ngeen dégg ko nee na jëfe ngeen ko na nga ko bëgg woon kon xolam seet na guy waaw sëñ Cheikh Ndigal Fall nag sëriñ Cheikh Fall borom ndigal moom sëñ Cheikh Fall bàyyi boobu mooy moom rek sëñ Fall kooku boo ko waxee mooy yow yaay moom ak taaw yëpp kon sëñ Cheikh Fall ndigal koo xam ne sëñ Modou Moustapha Fall sa maam la koo xam ne sëñ Modou Moustapha sa maam la nga ànd ak ñoom ñi nga xam ne ñoo jotale kàddu yi. nga ànd ak ñoom ñi nga xam ne ñoo jotale ak Serigne Cheikh ne. ak Serigne Cheikh Fall Ndigal moom nga xam ne. la gis la ñun ñu toog fi yow ñëpp gis nañ ko. fa la fa la fa la ñëpp wàcc bàyyi ko fa. fa la ñëpp wàcc bàyyi ba jant soo. ba jant bi soo. mu dem fanaane ba suba. mu dem fanaane ba suba. nee na mu xëyat. jàmbaar la ci liggéey bi lool. nee na jàmbaar la ci liggéey taxaw na ci lool. taxaw na ci lool gis nga ko. nee na sëñ seen liggéey jàpp na ci liggéey bi. waaye ku tuddal ak ku tuddul. waaye sëñ Fallilu nee na ku bi daal mi ngi leen xamal ni. sëñ Amdi Fall mi koy wax loo mi ngi xamal ni. def la doon bëggam defal ngeen ko ko. Ah, def na def bëggul sëñ bi nag. ci la di jaar def sunu bëgg. ginnaaw def nañ lam bëggoon. ginnaaw def ko. liñ bëggoon sëñ bi defal nañu ko. aaj yëpp sëñ bi sëñ am léegi dégg nee na aj yëpp sëñ am dafa nee na faju na yi fi daale woon sëñ am dafa nee na tànko ko bàkkaar nee na jégg nañu ak wér ak xéwal kon nee na ñaanal fan bu gudd sëñ daam sooda wa ànd ko wér sëñ daam sooda ak xéwal dina gaañ ba nit bëgg lépp ñu man ko di ko defal waxtu wu nekk nee na waxtu moom mën naa bañ a gudd jërëjëf moom. ndax jërëjëf moom. ak ak merci. ak merci. ñaari baat yooyu. ñaari baat yooyu sëñ daam. yaakaar naa ku la koy wax du la mere. waaw bu wax mukk merci comme merci. sëñ daam jàng na tubaab tubaab bi wax mukk ku mere merci. am liggéeykatu yàlla itam. am liggéeykatu yàlla itam. kenn du ko ne jërëjëf. kenn du ko ne jërëjëf. di ko ca mere. kon daal suñu xolum sedd na. kon daal suñu xolum sedd na buyu. nee na ñun tamit suñu xol dina sedd buyu seet fon. leen amul nag. lu may moom muy baatum ndigal bi nee na sëñ baa ngi ko yeesalaat nan ko gën a jàpp suñ ndigalu tey jii day wan na nu ni li sëñ Tuubaa bëgg lu ne Cheikh Ibra Fall mën na ko te dina ko def ndigal nañ ci kanam loo xam ne nag ndigal nañ ci kanam loo xam ne nag ndigal lu fi yàgg la ndigal lu fi yàgg la de loo xam ne sëñ Tuubaa moo ko digaloon Cheikh Ibra Fall bàyyi ko ci loxol waajur yi bàyyi ko ci loxol waajur yi loxoy mag ña ba ci Cheikh Moussa Fall weeru koor wi fi mas a ñëw nag. ñu àgg ca jàmm. yàlla ko wéer yu fa ko. buñ ca àggee. li ko sëriñ am di Fall bëgg. yàlla na ko ni mën a ñun ñëpp. defal ko nag ak bëggam. loolu nañ ko ko ñaanal. moom it mu ñaanal ko murit yëpp. murit yi fi teew yëpp nag. ñoo fabaat seenu bëgg. ñoo fabaat seenu bëgg. ak seen yéene. ak seen yéene. ak seenu ñaan. ak seenu ñaan. ak seenu cant. di ko jëmale ci Cheikh Moustapha mii toog muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall gaa yi gaa yaa ngi sant ñu ngi ñaan nga yàgg fi ñu ngi ñaan nga ngir ba li nga bëgg lépp ba li nga bëgg lépp ba ko defal sa maam ju baax ja ba ko defal sëñ Touba nga defe ko nu kawe sëñ Jot ko Fall ànd ko mbir yëpp di ñaanal sa ngam ba nag di ñaanal nag sa sang ba Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Cheikh Mamadou Mountakha borom Touba Xaadimu Rasuul sama borom gën ko fee bàyyi. sunu borom gën ko fee bàyyi. mën naa leen naalal ko yéene ba mu defee ko noonu ko bëggee. te ànd ko noonu murid yëpp te ànd ko ñun ah, Fallilu. moom sëñ Fallilu. ñu koy wax makaarim al nga xam ne ku nekk dégg na aw waaye nag defe naa liggéey bi waaye defe naa liggéey bii. ku ne gis na ci jëfam. ku ne gis na ci jëfam. jëf ji mel noo xam ni. rafet lool. nee rafet lool. rëy lool. lépp nag. nee lépp nag. Cheikh Ibra Fall sa maam moo tax mu koy def. kon sëñ baa ngi séeréel ni. kon sëñ baa ngi séeréel ni. sëñ Abdou Karim Mbacke liggéey bi agsi na. sëñ Abibou Mbacke Nourou Darini Touba ca kanam. nga xam ne mooy Nourou Darini Touba ca kanam. ah Touba ci kanam di bu fekkoon fekkoon nañ ñoom Touba dem kanam waaye ñoom day dañoo ñëw wane ko wane na ni Touba moo nekk ca kanam ndax sëñ am di nuuru daal di Touba ci kanam seen jëf ji jëf ci liggéey bii wane nañ seen i jëmm ñëw nañ ak seen i jëmm ñëw ak seen i matériel ñëw ak seen doole ñëw ak seen wërsëg ànd ak ñun ñëpp ci liggéey bi ba liggéey bi ak si fii mooy si kon sëñ am di faal nee na waa Touba ca kanam sëñ baa ngi leen di jottali ay cant yu ànd ak ngërëm nee moom ñi dimb seen ay faal li ma waxoon léegi rek nee li ma waxoon léegi ni bu mu tuddee ay bi bu nee du ñàkk ma fàtte baa ma juum waaye njabootu Seex Faal gi moom ku ko wax nee na kenn génnatul sëriñ Cheikh Bintou Fall moom sëñ Modou Ablaye. kon boo tuddee bàyyam bii toog. nee na bu tuddee bàyyam bii yi toog. tudd magam yi toog. kon war naa xam ne mi ngi seen biir. kon war naa xam ne mi ngi seen biir. fàttiwuñ ko de. te jëmm bu teewee nag. jëmm bu wut ay mbubb di ko natt. te moom mi ngi nii teew. ci sëñ Cheikh Bintou ngi nii toog. jëfam ji ci yoon wi. jëfam ji ci yoon wi. ak liggéey maam ji. ak liggéey maamam bii. ku nekk ku ne gis nga ko. jëf moom. jëf moom. ki ko jëf. soo ko ñaanee moo ko moom sëñ Cheikh Bintou soo ko yéenee moo moom soo ko yéenee moo ko moom ndax jënd la ndax jënd la jënd bokkut ak may jënd bokkut ak may bokkut ak abal li nga jënd moom li nga jënd nag yaa ko moom kenn mënu koo nangu waaye li la abal nag waaye li la abal baa ñu may la ko baa ñu may la ko suñ la meree mënees na koo nangu baa ñu weddi ko waaye jënd moom kenn mënu ci dara te lim yor da koo jënd kon nag sëñ bi daal kaddu yi sëñ Fallou nee na mi ngi tuub di jégalu ci kaddu yi. di sant nag di sant murit yëpp nag. nee na mi ngi sant nag bokk muritam yëpp. ñun kat nekkoon nañ ci waar yi. ca waar la. di gis seen jëf. di gis murit yi seen jëf. gis seen ak seenu bëgg. ak seenu bëgg. ak seenu nga xam ne moom. nga xam ne moom. liggéey bee dem ba jeex. liggéey bee dem ba jeex. waaye ñoom duñ jeex mukk. waaye ñoom duñ jeex mukk. waxtu wuñ xëyee rek. waxtu wuñ xëyee. a dañuy gën a bëgg. li suñu bëgg ñu man ko. li suñu bëgg ñu man ko. ba defal ko ko rek. nee na kon nag. noonu lay seereel nii. noonu lay seereel nii. ñun nekkoon nañu liggéey bi de. ñun ñi nekkoon nañu ñoom ci liggéey bi. seen jëf ji ñu doon jëf. seen jëf ji ñu doon jëf. ko ko fay. na ba ñu ñu ku leen ko fay ñoom mu ndax xam nañ ni. ndax xam nañ ni. def nañ li sëñ Tuubaa bëggoon. def li Seex Faal bëggoon. kon nag ñoom lay ñaan. ci dara jee sa maam ju ja. ak sangam ba. aji mur yi fi teew yëpp. aji mur yi fi teew yëpp. fajal aji yëpp. fajal aji yëpp faal. bu kenn ñàkkati dara. bu kenn ñàkkati dara. xanaa lu muy ñàkk de. xanaa lu muy mooy lu ko digalul lu ko digalul rek. mooy lu ko digalul rek. waaye ndigal daal. waaye ndigal li daal. lu muy jëriñ lu ne. nee na lu muy jëriñ ñoo ngi ñaan sa borom defal ñu ko. ñoo ngi ñaan suñu borom mu defal ñu ko. ca saxal ñu ca faal. barkab Serigne Touba barkab Serigne Ibrahima Fall. nee jërëjëf jëf. ci turu jëwriñ Cheikh Fall di Serigne Amady Fall. sëriñ Modou Mbenda. waaw. sëriñam ni nag. waaw. mi ngi nii toog. waaw. jataay bii. waaw. moo ko sàkkul boppam. waaw. ndax moo waxal boppam ni. waaw. naa yëgal mboolem. Mhm. njaboot gi nga xam ne ñoo woon si ndigal lii ko sëñ Tuubaa digal. waaw te def ko nii ko sëñ Tuubaa bëggee. Mhm. naa leen wax ñoom ñëpp ne leen. Mhm. lii ak bëggam. mooy ñoom ñëpp ñu maase teew fi kanamam. loolu sëriñ bi ko wax. moo wax sëñ Fall léegi de. ñu yaatal ko si murid yëpp. waaw lam sa jublu ak lam bëgg nag moo ko xam. dëgg la waaye xam nañ ni. Mhm. njariñ rek lay doon. incha allah kon sëriñ bi. waaw. mi ngi jottali ay cant ak ay gërëm. Mhm. du ma si dellu sëriñ Fallu di jëwriñu sëriñ bi. Mhm. wax na lépp. mboolem li nga xam ne moo doon kàddu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue. mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Amdi Fall mu Serigne Modou Mbenda hmm. Serigne Fallou yàlla yàlla guddal saw fat te wéral say cër amiin góor liggéey bii hmm. taxawu ko taxawaay boo xam ne hmm. taxawaay bu bat sëkk la ànd ko mboolem say rakk waaye jiital mboolem ñi nga xam ne ay kilifa la say kilifa la muy ñi fi teew sëriñ bi tudd leen sëriñ Fallou seere ko waaye du nuyu ñu mën seere ndax sëriñ bi dañoo jàppoon wir ñu si mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall te mu nawloo leen lool mu fonk leen lool muy ñi nga xam ne sëriñ Fallu lim na leen kenn ku si déggul turam ni ko sëriñ Fallu waxee ne lim dafa jafe waaye kenn ku ne yëg na ni ndigal lu fi mas a wàcce rek sëriñ bi sàkk na ay ndaw yónni leen si kenn ku ne muy buntu kër bu ne xamal ne leen ndigal rot na fi te ndigal li ñun noo ko bokk kon dañ koy ànd rek jëfe ko ñu Sëñ Tuubaa digle kon kenn ku ne yëg nga sa bopp ci liggéey bi nga xam ne Sëñ Amdi Fall jiite na ko moo tax cant yi ak ngërëm yi gannaaw bi sëriñ bi santee Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne moo ko jox ndigal te moom ndigal jëfe ko wax na ni moo ko fi indi te moo ko fi bàyyi mu koy ñaanal fan mu gudd dafa wér yàlla dëgëral ay cëram ba mu mottali ay yéene dafa see tegoon di sant njabootu Sëñ Tuubaa ndax ku sant Sëñ Tuubaa sant ak njabootam ñoom ñëpp si taxawaay bi Sëriñ Fallu am na lu mu si suñu waaye la sa topp mooy sant njabootu boppam ji muy njabootu maam Cheikh Rafal nga xam ne tey jii kër Cheikh Rafal la ñuy wax waaye waxuñu kër kenn. fii Cheikh Rafal moo fi teew njabootu Cheikh Rafal moo fi teew ndax ñii fi teew bokk Cheikh Ibrahima amul si kenn xam ne yaa tànn na bokk ak maam Cheikh bokk kenn ku ne sa borom si coobare la la boolee si maam Cheikh Ibrahima kon loolu dundal ko fonk ko nangu dogal ko suñu borom te moom la sëriñam di Fall doxal waaye si la ko njabootu Cheikh Rafal gépp na duus muy ànd bi nga xam ne su suñu borom moo leen ko boole ñu war koo ànd te dara waru see yàq dara waru see xam naa lu si mat ndaw si ñu ndaw ñi ñuy yebal waaye moom mat na sëkk ndax lu mu war a def rek mi ngi koy defe waaye lu mu war a wax mi ngi koy wax kon sëriñ bi sëriñ baa ngi leen sant sëriñ baa ngi leen di gërëm sëriñ baa ngi leen di mboolem yéen ñi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Serigne Fallou lim na ko dugg si seen Serigne baa ngi sant noonu mu ko waxee mboolem ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa daa gërëmoon seen maam Cheikh Ibrahima daa gërëmoon seen baay wala mu gërëm seen wajur wala mu gërëm seen maam wala ku bokk si jabaru Cheikh Ibrahima gërëm leen te ñu leen di tudde ay cheikh ñoom ñëpp ànd nañ ànd ak si si liggéey bi def ko na ko seen liggéey bi Serigne baa ngi sant taalibe yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw si li weesu ak fii lu ak lii nga xam ne lépp jëfal nañ ko sëñ Tuubaa dafay mel ne ndigal lii nu bàyyi koo tey bu nu ko seetloo ndigal lu jafe la def bu ma see amee bari waaye nii ko njabootu di tàkk taxawoo ba mu àgg ba mel ni ko sëriñ bi ni ni gënal sëriñ bi loola moo tax sëriñ bi sakku ñun ñëpp ñu ñëw teefu kanam mu xool ñu bëti yërmande mu ñaanal mu sant lu mu gërëm loolu sëriñ Fall wax léegi kon yi nga xam ne moom la ñu jottali day cant jëm ci ñi nga xam ne ñoom dañoo am ab taxawaay ci nga xam ne sëriñ bi jot wax xam ne ba ñu déggee ndigal te xam ni war nañ see am wala wala ab cër bu ci dox ñoom ñëpp taxaw nañ ngir liggéey bi ñu bay seenu laj ba liggéey bi mel ni ko ngir ni ko sëriñ bi bëgg loolu bokk na si ni ko sëriñ bi lime sëriñ Abdou Mbacké ñu jiite Touba ci kanam sëriñ bi tudd sant ko ci taxawaay bi mu am sant ko ci yitte ji mu am ci liggéey sant ko ci yëg gi mu yëg ni Cheikh Fall li ñag ñag ko kër Sëriñ Touba gii Cheikh Rafal kese la sëñ Tuubaa tànn ngir mu màggal ko ngir mu sàmm ko ngir sëriñ Abib bu keroog bi ndigal nu dem fa moom ba eggee dafa wax ko sëriñ bi bëggee ma ne ko sëriñ bi de daa bëgg taxawaay yuñ ci war a am nu am ko waaye dafa waxoon ni du yëkkati dara loo xam ne ndigal lu jóge kër sëñ Tuubaa ñëw fi moom te dikkul dikkul yëgalu ko ba nga yëg ko ndax xam na sa yitte ak sa taxawaay si ndigal yi jóg kër sëñ Tuubaa ñëw kër Cheikh Rafal mu ne ma fas naa yéene kuréel gi nga xam ne moom laa jiite muy Tuubaa si kanam lépp lu fi nekk si jumtuwaay dinaa ko si teg si loxol sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbène góor daal di sa tànn sëriñ Mbay Sylla di sab jarbaat boole kook man Mame Mbay si la Mbay si waaw waaw mboolem matériel bu nekk Touba ci kanam te Serigne Amdi Fall soxla ko na ngeen ko génne dem teg ko ci loxool Serigne Amdi ànd ak moom liggéey bi ba mu àgg ñoom ñoo ñuy njëkk a ñoo ñuy mujj a wàcc dëgg la waaye yemul ci loola Serigne Fallou Serigne Abibou dafa see boole daal di santaane nu jël gasoil gasoil bu doy sëkk bu ma ko seetee li lim nu dox ci gasoil mat na juróom-ñaari junniy litre yi gasoil yoo xam ne ñoo ko dindi si Touba si kanam teg ko suñu loxo ñu di ko def si camion yi nga xam ne ñoo doon liggéey mboolem machine bu fa ne muy pelle mécanique wala muy camion wala muy gradeur wala muy compacteur lépp mu ne na dem sa liggéey bu Seex Rafaal ba bi nga xamante ne bii kàmb yi tudd nañ ko te ñu war koo manq dafa daal di woo ay techniciens ñu bàyyi koo ndakaaru ñëw bañ demee seet dikk ne ko li nu war a def mooy placer fa ay machine ñu commencé manque ndox mi diggante bii Baye Fall di nekk ci corniche bi bala noo àggal fekk ndox mi jeex wala mu wàññiku ko bu baax a baax noonee lañ ko defee àllarba ja ci lañ indi mbooleem machine yi nga xam ne ñoo fa nekkoon di manque ndox mi ci lañ ko placé alxames lañ tàmbalee manque ñu tàmbali liggéey bi ajjuma ñun ci corniche bi bañ demee ñetti fan ba ñeent am jëwriñ yi fa dem bañ demee xool ni machines yi dañu ngi pompe bu baax a baax waaye ndox mi dayoo bi dafa dafa bari dafa rëy te jàpp nañ ni suñu continuer si machines yi rek dinañ àggal liggéey bii dikk sa kamb te duñ fekk ndox ma jeex si lañu xalaate ni nañ wuti ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy machine camion yi yore yi citerne yi manq foos sëriñ Mohamed Diop Murit ànd ak sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou ñoo woo ci sama kanam ki nga xam ne moo jiite mbooleem camion benn yi nga xam ne ñooy manque ndox xamal ko yitte ji ñoom ñu daal ne bis suba suba danañ xëy bu soobee yàlla te nañ ko waxee woon lañ ko defee am fa ñaari fan yoo xam ne génne nañ fa lu mat juróom ñeenti téeméeri camion ak juróom ñetti fukk yoo xam ne manque nañ ko si ndox génne ko dem tuure ko kon ñooñu sëriñ bi ñu jar a sant la te loolu liggéey bi sëñ Abibu la ba ñuy def loolee fekk na amoon nañ xalaat it waxtaan ak kam camion benn yi nga xam ne ñoo war a sëkk ñoo war a sëkk kàmb gi ñu xam ne li ko war a sëkk du ay caaxaan waaye lu ko jiitu ki ñuy wax sëriñ Mbaye juuf tey taalibe taalibe Serigne Cheikh Ibou Fall mii te nekk si Enan Chine société bi ñuy wax Enan Chine keroog bi préfet wootee te ma dem ko dinaa egsi si préfet dafa wax ni moom de fee ñuy gas ñoom tàmbali seen liggéey bee muy PK9 te ñu tàmbalee gas fas na yéene lépp luñ fa gas danañ ko def ci camion ñëw sotti ci kàmb bi ba bañ leen fay fekk si te noonee la ko def. ñu dugg si la ma woo téléphone. ne ma damaa bëgg boo ma mayee bu subaa nga ñëw. ndax damaa bëgg a woo mboolem service technique yi nekk ci dëkk te nga xam ne liggéey yii war nañ see tabbal seenu loxo wala am nañ si wàll ma dajale leen fii ndax liggéeyu Seex Sëñ Tuubaa bii mu sant seer Faal ñëpp dañ see war a tax loolu sëriñ bi sant ko moom moo ko def si coobare boppam keroog ba ma demee sa jataay ba fekk naa fa commissaire bii nekk jànn mu woo ko fekk naa fa ki jiite waa UCG muy mbalit mi fekk naa fa ñi ci enaan Chine fekk naa fa gendarmerie fekk naa fa waa presse fekk naa fa waa mairie muy commune bu Touba ñu Abdoulaye Ka yabaloon kenn ku ne si ñoom ak Sénélec kenn ku ne si ñoom Babacar maa jël kàddu ne leen ndigal lii sëñ Touba sant Cheikh Ibrahima Fall ñun ñu ngi ne si dëkk bii dañ see war a jàpp ba Cheikh Fall am si ndam te bëgg naa yéen ñëpp ngeen jàpp kenn ku ne jël fa engagement. Senelec moo njëkk jël engagement keroog su suba la xëy mbooleem courant bu ne woon ci corniche bi mu dindi ko coupé bi contrôle lu ñu fa waroon a dindi rek mu dem dindi ko ñoom ñëpp kenn ku ne police gendarmerie kenn ku ne am taxawaay bu mat sëkk boo xam ne bu ñu teewee si kanamu sëriñ bi faaw ñu seere ndax lépp sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall lañ ko defal maire commune bi yebal si ay ndaw wax ni moom liggéey bi moom la war moom la waroon mu def ko. kon taxawaay yi si war a am yépp moom la war daal may wax ne ma lépp luy matériel bu mairie am dinaa ko indi lu ma amul wax ci ngeen soxla ko wax leen ma ko ma luye ko indi jox ma camion yam yoroon yëpp boole si dotation gasoil boo xam ne xaw ma lim ba mu toll kon kooku tamit am na si taxawaay ma sëkk waa UCG mooy ñi yor mbalit mi te di ko saytu si dëkk bi mbooleem luñ toll ni fii si mbalit ñoom lañ ko jox ñu yóbbu ko fële traité ko sa seen dëpp ko ñu ngi fii si jataay bi teew nañ fii si jataay waa Touba si kanam wax naa ko léegi ñu ngi fii si jataay waaye waxal ko wax naa waa benn camion benn suuf bi keroog sëriñ bi bi nu liggéeyee bis bu njëkk ba lañ leen ñaanoon nu may nu ko nu xëy yendu si suba ba ngoon biñ demee ba ngoon ñu am un cinquième si lañ soxla ñu ñëw di leen di leen sant ak di leen gërëm ngir nu dell ba bis bu nu ko mënatee rek nu dellusiwaat ba ma sàkkoo si ñoom ne leen li ñuy sàkkoo bëgg xam mooy ngeen wax nu rek bis bu ngeen mën a dil siwaat ndax mbooloo mi moom mënuñu leen fee téye te yéen it gannaaw yeen may ngeen bis bii tëj seen i kàmb tëj seen i kër ni ngeen ko baaxoo woon nu ne nag dañ leen di yolomal nag ba yéen ngeen seet nu ngeen ko waat ngeen ñëw àggale liggéeyam sëñ Tuubaa bi ñu ne ñu may leen nu nu gisee bàyyi seen kanam ko ñu dem fee gisee daal di dellu si daal wax ne nun day li ñu jàpp mooy fa suñu yéenee jóg si kamb yii te kamb du fi fi danañ tëj suñuy kër mboolem kamb bu ne diggante njaareem Bambey Touba danañ ko tëj oto bu fa ne danañ la indi nga nekk si liggéey bi ba liggéey bi ak kenn ku ne xam ne bu ñu amoon taxawaay boobu liggéey kamb yee du àgg tey dafa dem xam ne te wonkuñu jàmbatuñu laajuñu dara lu dul boole boole si jël seeru ñàkk di si def ñooñu may seere sëñ Fallu seen taxawaay ñu sëriñ bee sàkk woon ne ñoom nañ ñëw ma jàkkaarloog moom ñoom camion benn yi bàyyi seex kan ànd naa ñoom ñu ñëw seen jëwriñ yi sëriñ bi waxoon nañu ñëw ma jàkkaarloog moom loolu sëñ bee ko sàkk woon si ñoom kon faw ma seere ko si ñoom li si dolliku sëriñ bi wax na ko sëriñ Abdou Karim keroog ba liggéey bi tàmbalee la tàmbali di togg ay ñam téeméeri bool ak ñaar fukk par bis di ko togg di ko indi di ko teg si loxoy Cheikh Moussa Fall Falilou mu di ko séddale si bëri. góor boole si sant waa këram yëpp ne leen dem leen sa liggéey bu Cheikh Fall boobee. kooku kenn mënu ko ñàkk a sant. dëgg la ko kooku amul kenn. waaw góor kooku ñi si dolli ko mooy ñeneen ñi nga xam ñëpp jàpp nañ ci. démb doon naa wax ni ku mel ne Mbaye bi ko Mohamed Diop wooyee di ko laaj ay camion si liggéey bi. waaw fekk na amul ay ay benn nekk ko ay remercié la yónnee. nan lañ ci def mbal kooku jar naa sant kooku jar naa sant jar naa gërëm Amadou Gaye yónnee na fi ay ay matériel ay camion ak ay pelle mécanique ak gone yu nangu ñoo xam ne ñoo ko yoroon ñu taxaw liggéey bi taxaw bu rafet boo xam ne luñ leen sant lu def kon ñooñu kenn mënu leen ñàkk sant ñooñu xam naa bu ma wéyee day damay juum waaye presse bi ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi ñoo si doon yëngu ndax liggéey bii nu mu mel rek parce que dafa bari rek mu mel na noonu ndax ñoo ko taxaw taxawaay boo xamante ne bii dañ joxe nañ information juste ndax sa jël benn la amoon ay sooxe waaye sooxe yëpp ñoom ñi nga xam ne ñooy presse te doon presse responsable ñoom ñoo wëlbati ko taxaw tem ba ndigalu sëriñ bi fu mu fu mu àgg fu ñu si toll rek ñu leeral ko ba mu leer nañ ñi ba murid yëpp xam nga ñu ko sëriñ bi ñu ko sëriñ bi bëgg sëriñ bi sëriñ Cheikh Ridial Seck sëriñ Cheikh Ridial Seck moom njabootam ne leen dem leen ànd ak liggéey ba ba mu jeex ak njabootam ñu ngi woon si biir mbooloo mi ànd ak ñoom liggéey bi kenn gi ñun sëriñ bi bari na ñoo xam ne sa taalibe bi ñuy wax Mbaxa oo otoom ñu nekk Ndakaaru yëpp la ci liggéey bi mi ngi nii toog mi ngi nii toog am na oto bu daanu sax waaye dana bu ko kenn tudd ndax si liggéey Cheikh ma ñëpp demoon ba ma man dama fiy des liggéey kon sëriñ baa ngi ñëpp sëriñ baa ngi ñëpp sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp la sa carrière ba sa gësum raay man moom laa wax dem dama ne liggéey la boo xam ne ku fi yónni woon sa soxna bu ñëwee di sa borom kër waaw waaye ku fi yónni sa surga bu ñëwee di sa njàkk waaw ku fi yónni sa taalibe bu ñëwee di sa sëriñ rek waaw góor ndigal lu mel nii hmm. kenn mosu ko fee waaye ni ngeen taxawoo ba mel nii hmm. kenn mosu koo tëdd te bu amee bu loolu amee njawalug Cheikh Rafal gi rek taxaw ba ma rek ñoo ma defal jëwriñam yii ak ñoom ñii nekk seen kanam jiitu ci liggéey di yenn si waar yi ñoom ñii ñoo taxaw ba lépp am lépp sot kon sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal loolu ko sëriñ Fallu bi waxee fii ku fi ñëw amatul bàkkaar sëriñ bi tàggoo ko bàkkaar sëriñ bi nee na ñëpp bu seen loxo te nangu ñaan ñaan gii nag bokkul ñaan yi daa am de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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem